sa papa bu dee défaillant ah défaillant saaga la. ah du gis nga yi ngay ya, wax may ngay ya def yow tamit djegal ma rek nak mais man lenen mo sama bob bi fum sama papa ñëw na indil ma kenn ne ma ki sa rak la dama bëgg nga Wow, ko mu dëkk ak yow yu kenn xamul. waaw man man dal man jaxassena sama lepp dal man. côté ah, boobu da ma djegal jégal ah, Mama Mbaye man ma amul sens man. lu ma doxaan mu échec. man mu amul chance jigéen yow. a ah déet ñaanuñu jàmm échec ku ñu nag. déet échec nga xamul tax. occupe-toi de ter soño mu occupé samay jokkeer ndax ku ne sa famille sama famille ngi nii.